daleen ak jàmm ci li gën a fës si internet bi coowal politique Ousmane Sonko ak i nitam dañ leen attaqué ni ki démb yamoo ko fukki fan ak benn ci weeru octobre bi ñu nekk ñeenti nit jële ci ay gaañu gaañu yu metti ba noppi ñu caxat caxatee wotoom mbir mi mi ngi xewee ci Ziguinchor bu Côte noor ñi def bile ñaawteef di ay partisan Doudou Ka ñi loru ci bile affrontement ñuy ñaan yàlla fëgg seen bopp bébé bi faatu si lakk-lakk yoon teg directeur clinique bile pédiatre bi infirmier bi ak aide soignante bi yon Dilen leen homicide involontaire ci mirmi mingi mi euh, clinique de Madeleines Tagata yaram remporté la coupe d'Afrique qualification du monde un objectif non négociable pour Aliou Cissé mu nekk ay kàddu yu Matar Ba jëwriñ giñ yaram yëkkati jëmale ko ci entraîneur euh, gaynde yi mu doon ab ultimateur mu yokk ci itam mënuma comprendre équipe bu toll ni Sénégal ñu am Sadio Mané ay joueurs internationaux professionnels ñu nekk itam e au rang mondial te mësuñu jël euh, coupe Lil matarba Matar Ba jël coupe ou rien ultimatum la pour kii di si c'est li lañ leen indiloon ci li gën a fës ci internet bi ba beneen yoon Inch'Allah, sur Saint Direct.